audience spéciale la ñu ko def 23 mai la ko jàpp yéenekaay gi di waa Grand Place nee na audience bi nga xam ne moom la jàpp talaata ji ñu dëgmal lu toll ci juróom fukki avocat yoo xam ne danañu teew ci tribunalum Dakar yéenekaay gi di Le Quotidien yor yor ci xët mu njëkk ma Cheikh Tidiane Dièye di fa wax ne Ousmane Sonko gars yi dañu ko bëgg a faagaagal ngir nag mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag loolee am na millions yi millions yi millions yi sénégalais ñoo xam ne dañoo am espoir am yaakaar ci Ousmane Sonko yaakaar la Macky Sall bëgg a yàq yéen i kaay gi de la turbine moom nag li mu jàppee projet Sonko bi ak Adji Sarr maanaam comédie na xam ne moom la ñu dëgmal ndax journal bi dafa jàpp ne lii ay théâtre la ko di jee xëy diñu xibaar naan ñu démb gars yi dikk nañu Sonko rek moo ñëw wala Adji ñëw na Ndeye Khady Ndiaye ñëw na capitaine Touré ñëw na docteur Alfousseyni Gueye ñëw na journal bi nee na démb Sonko ak Adji Sarr daat nay tax ñi nga xam ne ñooy école yi maanaam ñu tëj ko élèves yi jël nañu feet yoo xam ne dañu leen koo forcé ay vacances forcées yéen kay gi di Rewmi ñu xëy fekk fa maître Youssoufa mi nga xam ne mooy avocat bu Ousmane Sonko daat wax ne ba jamono ji Ousmane amul benn citation wala benn convocation boo xam ne daan koy jot ngir nag mën a teew ci tribunal bi yéen kay gi di bés bi maître Camara nee na Ousmane Sonko ab convocation mel na ni tulleeg male sa diwaanu Ziguinchor station Total bu Mbour Château d'Eau dañu ko daal di attaqué yéen a kaay gi de la Témoin xëy duñu xibaar ñu lii nga xam ne mooy coow li dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr maanaam mbirum viol mi li nga xam ne moom la coûté senegal bëri na li ci Sénégal ñàkk maara détaillé lu ëpp ñaar fukki nit ñoo xam ne faatu nañu ci ay milliards yi milliards yoo xam ne ñàkk nañu ko ci ay bëccëg yu bari yoo xam ne kenn liggéeyu la takk der yi nga xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi mobilisé ne en tout cas li ñàkk doy na kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci coowul Ousmane Sonko Adji Sarr bëri na ñoo xam ne faatu nañu ci waaye zéro coupable amul kenn koo xam ne jamono ji nee nañu ñuy faatu yow yaa ko def yéen kaay gi de la turbine nee na ñi nga xam ne ñoo ci faatu toll ci fukk ak juróom-ñaara maanaam quelle justice kañ la wax ne seeni mbir danañu ko leeral yéen kaay gi di réew mi ko di jenqi di ñu xibaar nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi jamono ji nag ñoom takku nañu ba dëgër nee nañu duñu seetaan tey duñu seetaan ëllëg ñuy liquider Ousmane wala ñu koy jéem a xañ muy bokk ci élection présidentielle 2024 coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag jamono ji bëgguñu daal réew mi am ak pëcc xool tax na ñuy conseil Ousmane Sonko ngir nag bu jotee convocation mu dem wuy ji tranquillement yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora nee na amul ca tribunalum Dakar ndax ñenn ci policiers yi ak ñenn ci gendarme yi démb ñoo doon jàppante maanaam policiers ak gendarme yi ñoo doon jàppante journal bi di Sud Quotidien xëy di ko dëggala nee na moo fa am démb ginnaaw bi ñu renvoyé li nga xam ne mooy audience bi journal bi de Le Peuple xam ne ñoo faatu ci ci état mu garantir askan wi lu jëm ci seen wàllum kaaraange ak seen wàllum moomeel yéen i kaay gi de libération na jàpp yi jamono ji arrestation yi ma ngi melu tulleeg male bi di Ousmane Sarr jàpp nañu ko journaliste Madi Sarña moom tim teg nañu ko loxo li ñu koy toppee appel à l'insurrection injure publique maanaam saaga ci benc lu jëm ci offense au chef de l'état tooñ njiitu réew mi outrage à magistrat tooñ am magistrat tim Bambey TV teg nañu ko loxo dig moo ko jàpp jële teg nañu ko loxo Yoba Balde Pastef Kolda moom tim jamono ji ma ngi ci takk der yi yéen kaay gi di réew mi ko di xëy duñu ñu gi di wal fajëri xëy duñu xibaar naan ñu démb bi ñu renvoyé li nga xam ne mooy procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr teewul nag lu jëm ci wàllum sakkaas yi maanaam yàq gi doon na wéy ci diwaanu Ndakaaru ndax démb ci Ndakaaru bëri na ci gox yoo xam ne dañu ko doon salfaañe yéen kaay gi di alerte xëy duñu xibaar naan ñu nag yàq li nga xam ne mooy ay édifice public ak yàq moomeelu les moyens xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko boo muy tuwulee si a résidence surveillée la jëm ca diiwaanu Ziguinchor yéen kaay kay mooy Ousmane Sonko dafa daw ndax ragal la yéen kaay gi de Le Quotidien bi ñu renvoyé li nga xam ne mooy procès bi sa diiwaanu Ziguinchor yëngu na sa diiwaanu Sédhiou yëngu na ca diiwaanu Goudomp timit yëngu na ki nga xam ne mooy directeur général bu SAPCO këram dañu koo daal di sax-sax yéen kaay gi de L'Info ñu xëy fekk fa maître Khoureysi Ba avocat bu Ousmane Sénégal ak kilifa yu autorité yi di vox populi diwaanu Kër lu toll ci fanweeri bus yoo xam ne dañu ko taale journal bi du l'observateur nee na ay cocktail molotov la ñu fa sànni yéen kaay gi di vox populi nee na diwaanu Goudomp ci manifestation manifestation ab gendarme boo xam ne moo balu fetal doon na jéem a far tiire ko boppam yéen i kaay gi délibération nee na gendarme boobee balu fetal bi ci tànk bi la dal waaye nag jamono ji alhamdulilah mu ngi féex yéen i kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa ministre Doudou Ka daat nay wax ne république bi jamono ji dafa menacé woo te nag xam ne noppi nga maanaam noppi nga ci ab crime te loolee crime lay mujj a nekk moom Doudou Ka daat nay wax wi ñooy tànn ci ak dal élection présidentielle 2024 enjeu yi dafa bëri réew moo xam ne pétrole be gaz bi ma ngi fii balle réew moomee du caagi ne koo jóg jox ko ko Macky Sall moo ko mën a doxal ndax mooy ki nga xam ne mooy nitu jàmm kay te nag bëgg a réew mi ma ngi commencé ci respecté li nga xam ne mooy institution yi waaye nag li nga xam ne gis nañu ko ci Sénégal musuñu ko fee gis ba Sénégal di Sénégal ba sunu yàlla jóne tey ci lu jëm ci wàllum politique ndax manipulation yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku bëri na lool violence xam ne gis nañu ko ak wax lu dul dëgg gi am ci réew mi loolee musuñu ko gis di Doudou Kala ma ngi ci direct news yéen i kaay gi di stade xëy di ñu xibaar naan ñu tay la ci Ligue des champions demi-finale retour diggante Manchester City ak Real Madrid yéen i kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Bombardier moom nag dal na ci kaw Sa Thiès ndax na Sa Thiès ak ñi nga xam ne ñoo staffam ñoo daw combat bi ñoo yàq combat bi ñoom ñoo ñemewul da waaye na ki nga xam ne mooy rëg-rëg moom na ko leer ne mbir mi du yomb ci moom Société nationale leen doon may seen revue